عند الله جلال عند الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi yëkkati sunu kàddu di leen nuyu di leen ziyaar ci jotaay bu tedd jotaay bu sell bi nga xam ne tey moom la ñu nekk fii ci kër sëriñ May Amar gi nekk ci Touba ñaari étage ci ginnaaw sunu kilifa gu tedd gi nga xam ne moo nekk sunu ginnaaw di Serigne ma Amar mi nga xam ne Moy khalifa sering may Amar and ak mbokam yu bax yi nga xamne ño nek ci jotay bi mbokki bu ngeen gisee jotay bi ngeen xamne kon ndigal joge na ci cheikh mohammed muntaha mbakem serigne bashir khalif general kullu murid yalna fi yag lol te and ak wer jaar ci serigne Ahmadul Mukhtar mbake mi nga xamne moy khalifa darul khudus ak aksi ci serigne Abdourahman mbake Gaynde Fatma jaar ci sëriñ Mbacke Madina aksi nak ci ki nga xamne ne buntam ci keur serigne Touba di buntam ci kër cheikh mustapha al karim di serigne mustapha mohammed mbakke mbokk yi kon xam ngeen ne bis bi moy bis bi nga xam ne naka jek mom lañu baxo wote fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram buñ ko waxe xel yépp dem ci bisub haji serigne may amar ren nak mbokk yi wara yamok alarba fukifan ñaar fukki fan ak ñent ci wéru juillet atum 2024 lolu mo waral serigne bi wote jotay bi ngir ñu yëkkati yegle bi tek ko ci loxol mbokki julit yépp mbokki talibé yépp mbokki darmanko yépp ak fépp ñu mën di nekk ci diwaanu réewum senegal jàpp bitim réew. bàyyi sëñ may mii ñuy fàttaliku dafa bokk ci ñi nga xam ni ñu amoon ci ci ci yàlla am ko ci lislaam am ko ci askanam am ko ci Cheikhul Xadim kon kooka bu ñu fekkee ni dafay jóge te ba mu fi nekkee ay jikkoom rek doon njariñ ci ci jullit ñëpp doon njariñ ci bokk yëpp ak yërmandeem aku tabeem aku woyofam aku bëggam sëñ ba yàlla dogal kuy njabootu sëñ Tuubaa fekk ko fa mu ne loola rek doyoon na kaawteef doyoon na may kon buñ ko wooteelee bis nu bokk ci dañuy sant yàlla ci loolu te ci soñ ñëpp ndax li wóor leer te kenn du ko werante mooy bisub bàyyi sëñ may li ma gëm jàpp ko mu leer ma mooy benn bis bu ñuy wooteel ku fi jóge mënu koo gën a jaadu mënu ko njariñ maanaam yàlla may la ba ñu bari mbooloo seede ni bàyyi sëñ may mii nit faatu na ci fi xam-xamu doomu aadama mën a yem mu ñaan yàlla ñu dekkal ko te loolu yàlla njëkku koo def ndax defaloon na ko yonte yàlla Moussa yonte yàlla Moussa jaamu yàlla rek la mu defal ko sëñ may boo waroon addina kuñ ci mën a seedeel seede bu mel noonu te mbooloo fekke ko bariwul ndax dafa mel ni maanaam ki ñuy defal bés bi di sëriñ may Amar yaakaar nitu yàlla ko nga xam ne kenn wéranti wu ko wa tabarkallah Souleymane li ma bëgg a wax rek mooy bis bi na nekk ci ay leson ndax histoire la histoire dafay nekk jaar-jaari nit yàlla yi ñun ñu koy nettali nag ñu jëm cee jànge kon daje bi daje bi nettali lenn ci jaajaar eh, sëriñ May Amar soo ko ñu koy déglu nag nam doon éduqué ci njabootam ay taalibeem ay xaritam ay mbokkam ci jaareel yoonu yàlla ñu nu dégg ko bu man cee jàpp téye ko jaruñu ci dafa ne mbir yëpp ay leçon la rek wax ji wax ji bu ñu sa objectif bi tax dëgg dëgg dëgg dëgg ñu da ko daje mooy nettali leen nag ci jaar-jaar yi nitu yàlla maanaam daje islam bi yëpp li ci ëpp su ko mën a ci ñoom nag fañ jaaroon lañ ñu doon digal daa ko digal loola ñu ko fekk jéem ci jaruñ ca loola dafa mooy objectif dëgg dëggantaan kon may ñaan rek képp koo xam ne yaa ci bés bi rek na nga fas yéene jaruñu si njëriñu si nag man la fa nekk lu nga xamee ni ay njàngat la ci wàllu jikko wàllu mbaax wàllu dal wàllu yiw wàllu lépp lu borom bi santaane nga def ko lepp lu mu tere nga bayiko ko ko daan def nak ba sun borom tabaaraku taala soxlo ko jël ko mu bayyi fi ginaam doona lu nga xamé ne kenn du ko fàtte ba yomal qiyam loolu nu fa ci yéene jarñu dong ndax téway bi téway bi manam jarñu ci ay ak lim dom lim bayyi ginaam rek nu jëm ci jor inshallah may jël sama po uh, nak di ko ci sama bokk talibé yi nga xam ni ño bokk kër gi wuñ kenn ko xam ni ci wa kër maam Ibrahima ci la bàyyiwuñ kenn koo xam ne ci nga bokk ñëpp ñu ngi leen di woo mbooleem daayira boo xam ne nii aju na ci kër gi ñoo ngi lay woo nga ñëw ñu ànd bis bi ba sellal ko ba nga xam ne nii suñu wasila yi dana ci am nam ko bëggee ñoo ngi woo waa Mbàkkeek waa Kajoor ak waa Jolof ak foo xam ne nii turu bay Sëñ May àgg na fa rek ku fa nekk ñu ngi lay woo nga ñëw ñu ànd bis bi li may kàddu yi ma yëkkati tantu kàddu dara lu dul kàddu soññee rek sama mbokki jigéen yi nga xëy ñoom laa bokkal waañu maa ngi ñaan bu bis baa rek na ñëpp teew te ngeen teel a ñëw di ci jiital nag jigéen yi Mbàkke Bawal di ci jiital yaa ak ñu nga xayante ne moom lañ jaboote di ci teg ki ne taay ñoom waa Aliya ak waa Saam maam góor Jóob ñoom ak ñam jaboote di ci teg nag soxna bu sa Camara nga xay mooy sama mag xëy bu ma taxawee fii ci kër gi sañ a wax moom laa fi taxawal añalee man la sëñ bi teg ci kanam jigéen ñi rek waaye may moom laa nekkal ci kanam ndax ay tane lépp lu mu doon rek ay tànkam laa fi doxe ay gémmiñam laa fi waxe maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi moom te wér di ñaan nag ci turu sëñ maam ama ñëpp jigéen joo xamante ne yaakaar na kër Seex Mayama rek bu bis baa yàlla na ñëpp teew ñu defe ko na mu ko bëgge góor góorloo bis bi yàlla na mucc ayib ni mu ko bëggee daal maa ngi ñi ñëpp ñu teel a ñëw teel a liggéey teel delluwaat ci kër ga ba am ngërëm sëñ maam Amma ma ne moom la ñu sàkku ci kër gi yàlla nañ ko saa borom yàlla boole defal. ci bis bi nga xam ne dañ koo baaxoo defal seen waajur wa alaaji sëriñ May Amar mu tolloog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit dëppoo le mercredi 24 juillet 2024 ci kër sëriñ May Amar gi nga xam ne moo nekk Touba Darou Khoudoss. sëriñ maama nee ne mi ngi koy yëgal njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp li commencé ci kër Cheikh Moustapha Al Karim ba ci kër Cheikh Mouhamadinil Mourtala waaye li commencé ci kër soxna Fat Jambake ba ci kër soxna Maymuna Suura di ko yëgal njabotuk mam Mor jaar Mbàkke njabotuk serigne afia njabotuk mam cierno ibrahim waaye njabotuk serigne Masamba Mbàkke serigne bi nee bis bi mi ngi ko yëgal ki nga xam moy serigne Si Mansour di khalife general Tidiane ak njabotuk Alaaji Malik yépp serigne mam nee mi ngi koy yëgal mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi waaye di beral ab yëgle mbokki bokkam yi askanu Darmanko ñëpp noo ci bokki rek ci askan wi sëriñ bi nee na mi ngi lay fàttali bis bii sëriñ maamu nee na mi ngi beral yëgle taalibe yi nga xam ne ñoo jokk ci kër alaaji sëriñ may sëriñ bi nee na bis bii seenu bis la mi ngi leen koy fàttali te leen ko yëgal li leen ci woo waaye di ko yëgal ki nga xam ne mooy son excellence la président ba Bassirou jomaay fay son premier ministre Ousmane Sonko waye ministre de l'intérieur gouverneur de la région de Djourbel préfet département de Mbacké sous-préfet de l'arrondissement de Ndam waye nee na mi ngi ko maire de la commune de Touba Abdoulahat Ka waye le ministre maire de la commune de Mbacké Galoba sëriñ bi nee na mi ngi ko bis bi di ko ci soññ waye nee du fàtte ki nga xam moy honorable député Ndaw di doomu kër gi di fi jarbat di fi lepp nee na mi ngi ko bis bi neena tamit fàttewut wëlëreem cheikh ajibu soumaré neena mi bis bi di ko ndax bisam la momit neena mi ngi ko yëgal képp koo xam da ngay tak ndomb ak tank mo xam ngay autorité religieuse wala autorité étatique serigne bi neena mi ngi lay loo xel bis bi ci teunk neena dal mi ngi ko mourid diko di ko diko yegal di ko yegal laayeen di ko xamne turu képp koo la nek ci bir senegal serigne bi neena mi ngi lay yegal bis bi bis bi nag nee na bisub ñaan la nam ko daan defee rek diggante bu ñu xëyee diggante huit heures ba treize heures njàngum alxuraanul karim lay doon durus lay doon xasaay di seexul xadiim yi waaye nag salaatu ala bii duñ ko fàtte ngir jegleel ko jàmbaar ju mag joog nga xam ne mooy alaaji sëriñ Mayamar suñ demee ba diggante quatorze heures ba quinze heures danañ pause def ay bernde ndax bis la boo xam ne tamit bernde bi dañ ko cee bàyyi xel bu baax a baax ndax joxe ñëw ku ci nekk xam ne ni amee solo. la ca topp mooy cérémonie officielle bi nga xam ne sëriñ bi da koo baaxoo def jàpp ko ci diggante 16h ba 19h nee na mi ngi koy fàttali ñëpp mu fas yéene yëkkati ay kàddoom waxtaan ak mbooloo ñaanal leen yeewi leen ba déwén kon bis baa ngi noonu mu tolloo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit dëppoog le mercredi 24 juillet 2024 ci kër sëriñ May Amar gi nga xam ne moo nekk Touba Darou Khoudoss. ci kanam xalifa sëriñ May Amar sëriñ noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu wér kàddu yi ngeen dégg yépp ci kanamam mu yëkkati ko ngir dox jëm ci bis bii nga xam ne dafa jàpp ne day wéyal lu mu fi fekk te cosaan la mooy ki njëkk a nekk xalifa sëriñ May Amar sëriñ Maam Gumba yàlla na ko yàlla yokk ay leer lam waxoon ne bis bi daal dana ko def ngir def ko ak ñaan ñaanal ci waajuram ñaanal ci sunu sëriñ sëriñ Touba sëriñ May Amar bis booba la bëgg wéyal noona yokk ko ba bum yées ñu ko sëriñ ba bàyyee woon loolu nag nun rafet nañ ci njort lool ndax taxawayam bi ñun ñepp séré nañ ko dañu ñaan yalla wéral ko lool tam yag mi ngi ci yoon yu bu baaxa baaxa baax day sant yalla nak di wax ne kaddu yi yépp ñun njaboot gi ñoo maase ngir wax lan nar dox jëm ci bisba yalla yàlla ci yalla yobbu ñaan goge nga xam ne moy ciosan cosaan la loola dafay dëppoo kep waxi sunu yaakar serigne touba ndax serigne bi da wax ne ñaan ni mu mën a jariñe kuy dund ni la mën ku buy ji boromam nek yowmal khiyam kon nak mi ngi wax ne ñangum eh, alquran mi ku ko deg te nek ci daaray kamil jo mën nek serigne sëriñ sakku ci yow na nga and ak nun ñaan googu ndax ñaan dong lañ ci jublu di touba yi nga xamne mom dong lañ am looloot bun ko bàyyi nañ ko ci gën a yokk fu waay nekk nañ ko ci yokk te kuy ñëw te kuy ñëw ci bis bi na am yéene bisub waay ju baax lañ jëm si am na ñu wax lu baax lool sëñ Aliou wax na ko sëñ Omar wax na ko bisub waay ju baax ku cee ñëw danga nga ci fas yéene jariñu te moom de am na rafet nañ jor ci moom ne am na mbooti sëriñ bi lu mu yore kenn ku nekk daanaka ñu walla ñu baree baree baree bari ci réew mii salaaw war nañoo mën a yëkkati seen loxo ne jëmm ji ñu tudd bi sëriñ Touba Amar sëriñ May jëriñ na ma ci ak dundam mbooloo mbooloo moo ko mën a wax. kookee nag ginnaawam dañ ko bëgg a ànd ak xalifa May Amar dundal ko ndax dañ ko war di fàttaliku njaboot ge danoo war a daje. ci kanamam kanam serigne mama at mu jot at mu jot dano wara ñu dajé ci kanam ci kanamam deglu ko mu digelat nu lam nu daan téré wat nu lam nu daan téré nu àndandoowaat wat. saafontewaat mbokk yi kon woote ba ngok bisub alxaaji serigne may amar fukki fan ak juróom ñaar ci wéru muharram yamok alarba ñaar fukki fan ak ñent ci wéru juillet atum 2024 sering mama amar andak ak mbokkam yépp ak njabotuk sering may amar gep ak taalibe yépp di ko woote fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci Daarul Xuddoos ñaari étage mu koy yëgal ñépp kon bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn mu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba képp koo xam ne teg nga sa tànk ci pàkk bu tedd bii fekke si bis bu sell bii yàlla nañ ci daje ak ngërëmal ku tedd ki sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci barkeb jëmm jane يا شيخنا يا خطبنا يا نورنا أجب دعاءنا وأمن رعانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسري لي القلب فلتدخل معرفة والأقوى صبر والأولى وإجبار أتى وفارقة أفعل المخابات ما تلاسم ما يسبي الجار ومنك أبخي زغلا فالبسلام